lépp sëñ waa këram loolu ku ko doon def dong di ko def ay ajjuma rek waxuma la waaye mën ngaa fa jàng loolu ku ko tax ñooñu ñu ngi gis te nit yàlla yi boo ko gis ngeen sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi bokkoon ci uur bi coppoon sëñ Tuubaa nee na woon na ci biir bàmmeel dama tedde lu mu niroo si Mouhamadou Lamine Gaye maa ngi si Moustapha Gaye nee na ku ma nuyu ci bàmmeel ma fay la ba xam ne Sabara Diagne rëy na de sëriñ Abibu ma sa koo siyaare ji bi mu génnee di mooñ ki ma dal ko laaj mu ne ko Mouhamadou Lamine Gueye ne yëg ne ne Abibu nga koy siyaare koy fay sëriñ Abibu mi nga xam ne moo jàngal say son bi buñ ma tuddee sëñ Mamadou Lamine Gueye ma xool te wax sëñ Mamadou Lamine Gueye doon de man ñëpp noonu bi gërëmoon dama ca siyaare maanaam ku ma nuyu ci bàmmeel ma fay la Cheikh Abdou Lahad Gaye Firdawsi daana wax ne doomi sëñ Tuubaa yi duma boot kii kaata kii waaye sëñ Mudu Mustafa Sabete sëñ Abdou Lahad Gaye ko yilif doo yilif ko ndaw de nee na doomi sëñ Tuubaa yi duma boot kii kaata kii waaye biite nañ si Mudu Mustafa am sëñ Abdou Lahad Gaye te si Mamadou Lamine Gaye si Tiwaawan nawoon na ko bàyyoon na ko xel lool ngir jaamu yàlla ku bari gi nga ne Sëñ Tuubaa nit mel la mel mel la a mel ndax su ko milutoon man duma ko topp te na ko topp sëñ bi dem sabar ak sabar boo ko Sëñ Tuubaa doon tëkk ko ne xaraam na lan ko wuy ci dem sabar moom si Mamadou Lamine Gaye yi Firdawsi te menn mbaam la amoon ci dundam ba dañ génn ko man xam ne yow war doo góorgóorlu de je sais que la ngeen tara gi rek li am ci si wàll lépp menn mbaam la amoon moom laa waral ba di faatu te mbaam mu jigéen moo tax borom daarul waxti nee na ku ne boole na yàlla ak dara ba mu ne si Mahamadou Lamine Gaye am ci na ko wax nee na ku ne boole na yàlla ak su lëf ba mu def si Mahamadou Lamine Gaye daana wax it ne adduna sittu ma ko dara lu mu sédd moom ko gëne te nag talibé bu mag ba sëñ Amadou Fall aram kan di dox ba mu yàgg mu taxaw boo ko dafa laaj mu baaw lay xalaat bu fi jëm ak bu ko fi bis ma ci sama talibé jëm ca yàlla su ma noonu lagsi wala man rek may dem yàlla mu lagsi dana ko yee yaar ba ma fa xamee lu ma te te borom ba borom kaar gi mu yilifoon sëñ Mamadou Moustapha sëñ Moustapha bëri dimension la waaye boo boo tànnee sëñ Mamadou Ngay rek da nga daan xam sëñ Moustapha ko sëñ Mamadou ku faar la maam yi kii la meloon sëñ Ahmad loolu mbere yi noonu lay dox bay dem jëndee bàkk ñëw sëñ Ahmad loolu mbere yi loolu daal lay dem di ca dox mucc muy dem jëndee di ñëw te nee na si mënu saa galfan rek dénk ma dénk ma ñu fi mën loo may kon mag ñi mag ñi beneen beneen dimension rek ñooñu bu ñu leen di waxtaane xam ne kon sëñ waa ku mu su ko defee ngay ko yëg di ci ak xam-xam nii rek ñaari ñi ma ci si loolu meri sëñ mat beneen gay yi seen ndaw si su ma ndax lu nit yi xam-xam nañ ko doomi soxna lañu feesal nañ ko jàpp ne ñoom dañoo doon ay mbëri làmb rek si gaaw woote ñu fees dell ci seen borom sëñ bi tamit nga daan wax ne lefoom yàlla ni soobu naa ko suba ba jant so dabuma góor góor dabuma kon xalif mi yàgg na ne lef mi laa xëy soobu ko suba ba jant so diggante bi dabuma fi génn góor waaye génn góor na mu may nee naa am ku ma sànni gataan ma geesu muy sëñ ma xam ne sant la sant la waaw ginnaaw ab sant la sëñ Tuubaa moom la nit ñi war di xam-xam ne li muy mm. ne ko ne foofu sëñ Tuubaa de fu mu lakk Cheikh la Fall zikara zai kon mag ñi lu baax lañ sëñ waa nag kenn ci yoon wi waaye bu fekkoon ne sëñ waa ku ñuy séen la euh, sëñ bi rek moom du ko te jaamu yàlla moos daanaka ne sama kër farata laa ko ñàggee sàkkati ko sunna ku ko ñàgg mooy sama woy mooy nekk sa bopp si ma la ma ku garaaw si ma la ko bàyyi xeloon ngir li muy séen daa bari lëf mi la muy daw daa bëri si loolu nag vitesse am moom la kenn mënta attan waaye moom vitesse fa doon daw ci boromam nga xam ne bu amutoon ku mel ni Sëñ Tuubaa it mën naa dem ñoom noonu xam seen borom xamoon nañu yàlla jàngoon nañu it moo tax ñii fii jàng jaay si kii gudd caay bu war bu gudd ñu weddi leen sëñ ba la leen ngeen ñii man naa jàngal ñu jàngal seeni maam Sëñ Tuubaa sëñ man loo mel nii baax baax sëñ waar a gëm te daana dem barsak di del si barsak di del si loolu loolu daw de kon ma ko waxee gars yi déglu tasawu dañu wax ne loolu mën na nekk te maa ngi sëñ Basiru mii daana dem barsak di del si barsak la barsak ñu fii gars yi ku ne dem la kan ñëw de barsak lay dem xam la la nekk te te loolu mu man lépp kat teewul muy doon sëñ dem Marsaq ñëw nag beneen wilaay ndax du wali bu ko mën de fi ne wali tollu ñu nekkee tollu ñu ay doole nañ wali yoo xam ne bu ñëw dem Marsaq man ñoo xam nag la ma ne man nañoo fekk li ko fa nag waaye ma jógi fii nag dem fa dil si beneen dimension la te sëñ mat loo beere daan dem Marsaq dil si fii tey tey bi Seexul Xadiim radiyallaahu anhu kon mag ñëw boo waxtaanee boo waxtaanee seen melo seen jëmm te kat dañoo bëri a ma xam ne xam nga fii de gars yi dañu xam-xam ne jàng wéeg si de te te léegi ñooñu ñii dañu leen xam-xam nag ñii dañu leen gën a xees gën leen a xam yàlla te teew ñu làpp ci si xam nga benn dem ñu téere yi yow yéen da cee bëri am la ndax fi ne loolu saa bi léeg-léeg mu wax lu am solo maanaam wér xëy bokk na xam-xam xam nga léeg-léeg gars nit mën naa xam lu ne jeexal téere yi te xamul luy xew suba jaawale xam-xam ak wilaaya nit mën naa bañ a xam dara it am wilaaya nit mën naa bañ a xam dara am wilaaya waaye san salat boobu mosa bind turam du ko xam sëñ san salat mosa bind turam du ko xam ak sëñ Souley Diagne xare boo bindee seen tur nii xamuñu teew ñu bokk ca gaay yàlla ya ñoom gaa yooya kon da ngay bàyyi xel ne ci te sëñ Assane Salaan kës fu kës fu ci réew mi ne ku fi ëpp kës fu gisu ko nee ni sallallahu alayhi wa sallam féetee kaw ñëpp laa féetee kaw kaw kës ci yàlla loolu lu ndaw ni sallallahu alayhi wa sallam féetee kaw ñëpp monsieur Sall moo ci ñëpp moom ku yàlla bind ku ne rek nga yor bopp Moustapha la féetee kaw kenn fitiwu ko kaw nee nag nii tamit féet yi ñëpp kaw nag xam ne du war a moom kenn mun sala sala nee na ñi am kës bu ci yàlla nga xam ne yàlla xamal na leen kës bu ñuy wax see sal salal leen maa leen fete kaw te ma ne taari si tuwaa la de moom see sal salal te taari bi seexul xadim kon boo boo boo tànn mag ñoo nag da nga xam ne si duwa ko moom